internautes yu Dakar actu. nañ mbégte bu baax àndaat ak yéen si seeni émission bi di Actu Débat té ñukoy amal semaine bu jot ci Dakar Actu TV tey nak euh, ñu am mbégte bu baax baax di dalal ki nga xamante mom mo moo nekk euh, monsieur Mamadou Kassé Mamadou Kassé nekk directeur général bu société immobilière bu Cap-Vert alors monsieur le directeur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di la sant également ci invitation bu am solo bi nga xamantene invité nga mako ci sa émission bi nga xamantene ñepp ñëpp a koy mhm. alors directeur ma fatali que ni yow tamit nek nga conseiller technique bu président de la république ci walum habitat ak urbanisme alors monsieur le directeur il biñ la nommé euh, octobre 2019 lañ la fal ci euh, institution bi di SICAP ñoo ngi septembre 2020 presque léegi nga def une année d'exercice. alors tay buñ doon def bilan mi parcours lan la mëna japp ci si li nga jot réaliser fi D'abord, même vais me préciser parce que je suis un solo hmm. euh, parce que je suis conseiller technique urbanisme habitat le président de la république 2012 la ko en 2016 hmm. donc ñeenti at le ci euh, ci walu urbanisme ak walu habitat loolu nak occasion la bo xamantene ne mhm. euh, day permettre nga toucher question yu beure mhm. ci sa bir euh, domaine tout à fait te damay faral di wax ne présidence dafa nek espace bo xamantene ne mhm. du espace bu ñuy jógee duñ ko quitter waaw espace la bo xamantene bo fa xese ba dugg dafa melni existence bi c'est éternel ndax da ngay chaque fois da ngay revenir parce que c'est au cœur de la stratégie d'accord

en activité au sein de l'État dañuy faral di dolli ci xélam wala di laaj ay instructions donc mom mën naa jàpp mm. sénégalais yëm yëpp ay conseillers lañu Wayé nak bu la tabbee mm. ci benn domaine bo xamanténi xeyna xarañ nga ci mm-hmm. nga war yow diko synthétiser li xalaatu sénégalais mm-hmm. diko jox information ci secteur bi ba paré bolé ci bu recevoir ay éléments yo xamné war na ci def stratégie mm-hmm. mu bolé la ci da fay am solo d'accord C'est du ci mën parce que moi it nag du mën a traiter courrier bi yëpp. Mhm. courrier domaine bu nekk ak conseil bi nga savez, dans ci domaine boobu nga yëngu. Euh, conseil diplomatique bi ci diplomatie conseil urbanisme ci l'urbanisme. urbanisme euh, conseil sport ci le sport. conseil mhm. jeunesse ci la jeunesse conseil nga stratégie économique c'est ci walu économie bi ak ñoomin sen donc loolu moom motax mom tam day am palettu spécialiste bu nek ci wétam bo xamantene da koy xelal saa su d'accord bilan mi parcours bi buñ ko mëne xayma <laughs> wa xam nga man damay japp né toujours sax mhm. un an bu matul sax doyogul ci bilan ndax euh, euh, bu fekkee ne SICAP mhm. dafa am juroom ñaar fukk at parce que ren SICAP 70 ans la am mhm. bo ci jotee def un an de gouvernance bo né da ngay bilan loolu prétention la Euh, kon damay jàpp ne rek dangay ngay euh, yokk ci xar mi karaw mm. maanaam xëy na toujours dina am loo xamante ne dañ koy war di noddanti mm-hmm. euh, te ñi ngi ci mooy li nga fekk te yow mu nekk orientation yoo xam ne da ko war a jubbanti nga jubal mm-hmm. ànd ak sa équipe def ko li nga xamante ne fekk nga muy dox mm-hmm. nga gën ko yokk doole loolu nag mooy permettre peut-être ak rapport d'activité yi nga xamante ne ni nga ko def au bout d'un peut-être jour pour jour jour anniversaire wala buñu budget bi. dinañu bu dugg ci détails. mais mën nañ né hmm. euh, SICAP préoccupation majeure li nga stratégie majeure bi. Hmm. projet bi nga président mi ngi koy projet 100 logements yi. Hmm. Euh, SICAP rôle bo promoteur du ko ci joué promoteur yi. mo lu réalisé ci bolé ci mo ci ëpp notoriété donc jàpp nañ né depuis bi commencé programme bi. wa depuis biñu commencé promotion immobilière ci Sénégal ba tay d'accord waaw donc warna euh repositionner wu ci à travers programme bi ni mm. conforter position de leader am waaye tamit nek bras technique gu état bi. ci projet bobu nga xamante amna solo pour président de la république. D'accord. peut être buñu waxé bilan mi parcours priorité yi nga xamante fixé won nga ko bi ngay ñëw peut être amna lo loo jot nga ci taxaw setlu

suñu ay sources de financement maanaam fi nga xamante ne dañu war jëli xaalis. pour régler euh, accélérer euh, cadence su projet D'accord. Jafé euh, jafe bi ñu fi fekkoon. Hmm. te bi ci ëpp mooy jafe-jafe wu lotissement bi ñuy wax Kër Massar. Hmm. vraiment loolu dafa xaw a metti parce que lotissement bo xamante ne dafa xawa lotissement bu bax la wax dëgg yalla hmm. idée bu généreuse la répondre na ci stratégie wu SICAP mais malheureusement ben problème la ñu problème mu temps. d'accord donc biñu ñëwé ñëwee aussi. Euh, comme ay citoyens ñoo jënd. Euh, on a été confronté ci problème yooyu noonu là aussi priorité la woon ñu liggéey ci ba nga xamante on trouve des terrains d'entente ak ñi nga xamante ne ñoo doon ñaxtu ci wàll boobu noonu. d'accord muy wàllu par exemple électrification bi ak yooyu ñu ciy def ay jéego. waaye nag des mais au moins euh, trouver nañu ak ñoom ay terrain ba accélérer cadence bi programme yi nga xamante ubi ubbi aussi. Mhm. ñu mën leen à terme. Mhm. yi nga xamante ne mi ngi doon ralentir ñu yóbbu leen bonne maturation yi ñu commencé wul woon ñu commencé leen te lépp def nañ ko bi may ñëw liberté 3 commencé wuñ ko woon commencé nañ ko mhm. rudis pare wuñ ko woon ñi ngi koy waaj a pare euh, Grand Mbao dafa doon dafa doon yéex ñi ngi koy accéléré tey jii nii jàpp nañ ne Lac Rose ak Diass moo des ci ñu dóor foofu un coup de boost pour que effectivement maintenant euh, machine bi euh, mën a ni mu waree boole ci nag suñu inscription ci biir programme 100 000 logements. Et partir qui engagement de 20 000 logements dans euh, le programme. Donc, ce qui conforté, l'engagement que vous avez le jour où vous fini, si cap de telle sorte que vous avez joué pleinement votre rôle mm-hmm. si atteignez le programme que vous avez 100 000 logements pour le président de la République. Bien sûr, c'est-à-dire que cela, il faut comprendre que comme euh, objectif que l'État du Sénégal mm-hmm. C'est-à-dire que l'État du Sénégal, moi, euh, moi, définir présent mooy définir les grandes orientations. Mhm, tout à fait les grandes orientations ñu joxe les grandes lignes yi nga xamantene non lañu exécuter programme mhm. par secteur ñun suñu secteur yalla def na mhm. euh, érigé nañ ko au rang de priorité manam nek euh, na. am amna am patch bu am solo. bu muy jouer ci biir ci biir PSE buñ ko jagleel ah ak ak programme légui maintenant zéro bidonville ci biir programme zéro bidonville bi. judduloo ci euh, programme 100000 logements bi nga xamantene mo wara war gérer aspect yooyu.

est-ce que c'est dëkk Tamba inondation comme nous Nous avons yu Sénégal. Nous ñun là ñun laaluñu euh, ni peut-être quelque part dans le département de Goudiri. Hmm. Euh, am a peut-être deux localités qui ont fait quelques dégâts hmm. aussi.

bon li mineur moy li moy lal bi nga xamantene moy naturel mom fofu lay couler tout le temps lolou moy li mineur mhm. mais li majeur moy bu fekkee ne dex gi débordé na bu débordé ci li majeur bi la jëm li majeur bi nak mhm. day jël zone yi nga xamantene day inonder zone yoy ñun mom lañuy woyé faro mhm. faro yoyu, dina am nit yu fa dëkk té vraiment nak du ay zone yu ñu wara a dëkk mais su ndox amee danañu am quelques jafé jafé d'accord waaw bu jafé jafé yooyu amé tamit euh, gouverneur day daal di taxaw service état yi taxaw mais ñun tamit ñu ñëw en appui le ñu mën ñu def ko mais Tamba vraiment mun nañ jàpp ne euh, li koy gën sonal moy les crues des fleuves mooy su euh, fleuve Sénégal mhm. débordé côté Bakel mhm. té am nañ ci ay alerte OMVS tout à fait ak bu fekkee né Goulombou mhm. mi nga xamanté né affluent le jógee fleuve Gambie jaar fofu nonou mom su fekkee né débordé né aussi fleuve Gambie mu débordé aussi day indi problème niveau niveau niveau Gouloumbou manan affluent foofu moy zone bi mi jaar par rapport ak moy séparé euh, région de Tambacounda ak région de Kolda foofu non, hmm. effectivement bu jógee zone bananière bi dañuy xaw son foofu tamit am nañ fa ay alerte niveau OMVG je pense que nit ñaa ngi veillé d'accord directeur bu ñu ñëwaatee Dakar urbaniste nga est-ce que tey explication yu ñuy servir à la télé comme à la radio, di ñu naan c'est un dérèglement climatique qui a fait qu'aujourd'hui beaucoup de familles se retrouvent dans les inondations. Est-ce que yow euh, explication boobu nga ñu mën jox en tant qu'urbaniste? Bah, waaw xam nga euh, lu nekk rek hmm. doo ko exagérer la cay wàllam da nga ko koy jox xam nga boo bëggee comprendre mbirum mbënd hmm. da ngay xam ne am na partie boo xamante ne dafay jóge ci dérèglement climatique hmm. am partie bo boo xamante ne dafa jóge ci lu ñu warul woon def lu ñu def te defuñu ko mu am lu jóge ci Euh, nañ ko waroon defee defee wuñ ko noonu mu am lu jóge ci nag nit ñi ci seen bopp comportement yi ñu war a am amuñu ko ak nañu war a doxale ci seen dëkkin doxalee wuñ ko combinaison bu élément yooyu yëpp mooy mën a joxe explication mais c'est que dérèglement climatique bi dafa demoon benn moment boo xamante ne daf ñu installé woon ci benn cycle bu nit ñi demoon ba yaakaar ne ndox mi dootul ñëw ni muy ñëwee ba tax na sax euh, ci à la de dérèglement bi nga xamante ne dafa favoriser woon plutôt une sécheresse. Mhm. moment boobu noonu fi nga xamante ne moo doon lalu dex yi. Mhm. ak seen mooy yoonu ndox yi demoon na ba nga xamante ne euh, daanaka nax saa yoon na ndox jaaratu fa woon. Mhm. ba ñu yaakaar ne sax fii mën nañ ko sëkk dëkk fi donc zone yu bëri dañ ko sëkk dëkk fa te yoonu ndox la. donc bu ndox mi dellusee mu am donc beneen cycle ndox mi dellusiwaat. day dellu ci yoonam. parce que mënul dévier. tout à fait ndox mooy loo xamante ne yoonam rek lay jël moom waaw moom boo ko defee blocage wala nga def ko barrage mhm. soit day def rétention bu fekkee ne barrage bi ëpp na mhm. wala mu def ruisseler dem yeneen côté bu fekkee ne que dafa imperméabiliser c'est-à-dire que mhm. ndox mi ñëw suuf si mënu koo parce que euh, spécificité wu sol urbain yi loolu la à force ñuy nit ñi di agir ci sol yi ñuy defar ay fondation ñuy baare fii di def ay route fële te defuñu yenen drainage yo xamantene dana permettre ndox mi ñu bayil ko yoon bu ñëwé day dugg fenn comme mënul infiltré wu mu tak donc ça veut dire que assainissement bi war defuñ ko ba la ta ñuy dëkk ci quartier yoy ngay wax wala xam xam nga bo gisé président 2012 mom ci bopam mu am yéné wu mhm. ci fukki at mu jël lu tollok jurum ñaat téméri milliards ak euh, jurum jurum benn fukk ak juróom ñaar mm. xaymako ne li bëgg am nañu yéene dugal ko euh, ci biir lutte contre les inondations ci volet yëpp. parce que mhm. dafa bëri ay volet dafa transversal. kon koku xam nga ne bëggul ñëw di gérer ay urgence kessé koku bëgg na trouver solution bo xamante ne nii. Mhm. xëy loolu moom du mom mo nekkoon ki nga xamante ne mhm. indi problème yoy ah mais nek na ki nga xamante ni bu fekkee ne moom la fal ci mom lañu yaakar pour am ci ay solution absolument parce que mom soo xoolee processus bi nga xamantene mo favoriser euh, l'installation euh, ci zone non aedificandi yi mu doon wax nan fu fu warul tabax nañ bàyyi di fa tabax lolou période yoy xeyna mom sax université la nekkoon période yoy ñun ay xeyna ay tout tank lañu mais donc amna ben responsabilité ci bu ko bu ko jiitu mhm. am jamono benen bo xamantene euh bàyyiwaat nañu encore nit ñi dëkk. ci ay ay ay zones yo xamante dañ leen di defaral ay lotissement mais réseau. Mhm. Euh, secondaire bi duñ ko def. d'accord waaw donc ça veut dire que c'est la responsabilité étatique toujours moy ñëwaat. mom nak hmm. bi mu ñëwé man ci lima fateliku parce que fekke nako hmm. comme ni ma ko waxé won jamono bobu ma ngi ci wétam hmm. mu ñaawlu ko daal di ne moom ñuy ñëw di taf yëngal manam ay travaux tâcherons. moy mhm. nit ñi nekk ci jafe-jafe nga ñëw génne leen ci jafe-jafe après bu taw bi ñëwaaté ñu amaat ay problème ñu nekkat encore ci dans l'urgence di leen lijeentil yoy mu dafa né mhm. naka la ñuy def ba ñu trouver ay solutions durables mais xam nga Sénégal lañ nekk. Mhm. budget bi dafa am ay priorité budget bi dafa am ay limites. té ñun tamit yoruñu lo xamanténi ni nii mën nañ ko def ci lépp té du jeex. ndagam ñi ñu ëppale fouf nous appelons comme euh, pays développés nga pays développé nous ndagam sens des priorités problème en finalité. Mm. plan décennal de lutte contre les inondations def na une action pérenne. Mm. li nga vous avez na taw ni gisuñu ko bi mu tawee lu bëree nii parce que li taw ci ñetti fan yi moom lañ doon xaar daanaka ci ñetti weer yi hivernage bi mu taw ko ci ñetti fan xam nga loolu faaw ma may jafe-jafe mhm, mais terewul mhm. euh, boo xoolee fu mel ne euh, zone foire ba mhm. foire ak li ko wër laay wax man foofu fu metti la woon boo ko jëlee euh, impôt et domaine ba ba dem ba Sicap foire nga wiiri encore nord foire ak ouest foire ak zone boobu yëpp ak benn benn wet bi nga xamante ne day jël rond grand rond wu yoof ba mooy Philippe Maguilène Senghor mm. mais foofu foofu ndox kese la daan doon donc canal de drainage bi ñu defar foofu moo régler problème boobu d'accord mais réglé wul yeneen problème yi nekk si yeneen dëkk yi ak yeneen localités yi waa xaaral rek mm. am na yum réglé mm. comme ban waaw il faut il faut pas que ñu xool rek li li li fi problème yi nekk RN1 point névralgique la woon aussi moom la ñuy wax RN1 hauteur rond case bi point névralgique la won mais man exemple bi may gëna joxé bi gëna illustrer parce que fofu ci bir ci bir gouvernance bi ci bir problème bi ak ci bir règlement bi yépp daf ci am ay yu ñu war a jël fort. Dalifort. xam nga euh dafa am histoire. ci urbanisation euh kuñ naan anic osman. Mhm. nga xamante elle était à l'orstom moy euh, li devenir IRD defoon na ci ay travaux yo ñun sukkandiku pour xam euh, dans quelles conditions est-ce qu'on a pu régulariser un certain nombre de quartiers C'est parce que loolu le na donc euh, beaucoup xoolee hmm. euh, benn ben livre tout la banque mondiale et les villes Annick Osmond moo bind problème mu Dalifort mi traiter. ko fay traité Mansour Tal, géographe urbaniste a fait ci travaux yu tar moom ak Amadou Diop bu Nous sommes collègues lañ ont xamante ne sur la la question mais 2012. Il yexé dafa ben symbolique bu amoon euh, la cité soleil la cité soleil ça yu Ce taw day sinistré mm-hmm. li tax sinistré que mi day en rétention yag fa ba mm-hmm. ndoxu daaw fekkaat ko fa ah ndoxu ren fekk ko fa tay ak taw mm. reportage Dalifort vous voyez que le plan décennal a marché à 100 Et pourtant ka fa nekk population yi fal ko. mu yor seen il muy Idrissa Diallo yaakaar naa ne. bokkul ci ñi far ak régime bi. Non non. suis d'ama que ça ait yu ñëwee ci plateau télé. dafa dee gërëm di wax ne que vraiment moom jàpp na ne dañ ko privilégié ci wàllu ndax si système génne nañ ko ci ndox yi. kon kon fofu dañ fa wara a lu se mhm. d'abord le président xaajul ak a ndax commune bi moko contrôler ou pas pour def fa la nga xamantene ne sénégalais yi la wara a ñaarel ba le plan a fonctionné parce que c'était la zone la plus sinistrée. le plan décennal. a fonctionné sur cette zone là. évidemment parce que les travaux yi fa ëpp solo. Mm. projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique mon projet dans sa phase 1. Il dafa a un financement qui est euh, contrepartie banque mondiale euh, daf si euh, contrepartie fonds nordique de développement Amti et contrepartie état du Sénégal loola ba nga xamantene ne ñi ngi ciy njëkk def réunion dama koy fàttaliku toujours. Mhm. Euh, euh, man ak Abdoul Aziz Mbaye ancien directeur de cabinet ak euh, ki fi toogaloon banque banque mondiale ñu di wax tudd Vera Songway. Mhm. ñun ñoo ci nekkoon di lijjanti ak jamono bobu ak ADM. donc fofu liggéey bu am solo la bo xamantene ne fessel jarna woné waye nak amna waaye nag am mhm. ouvrage de drainage yo xamantene ne def nañu ko. Euh, par exemple ouvrage de pompage qui nga a un def lac Curuur ak lac Le mhm. euh, canal bu il bi nga xamante de nañ ko mhm. ak travaux euh, route de Boune ak Diamaguène Sikap Mbao mhm. ak zone de Juma maren Medina Mareen ak vraiment Nimzat ay liggéey te am nañ ci satisfaction. d' accord directeur euh, man euh, maa ngi lay déglu boobu ba tey mais li ngay wax yëpp dakaar nga koy yemale. Mhm. te alors que gestion inondation yi warul yem kese Dakar. waaw kon bàyyi ma parce que Dakar n' est pas le Sénégal. voilà et les autres villes aussi sont inondées. demal Kaolack demal Saint-Louis demal ay Louga. voilà xam nga bëgguma woon. Hmm. bëgguma woon rek euh, di enchaîner te fekk yow ci sa bopp. tout à fait voilà <laughs> joxoo ma orientation. d' accord donc tey jii nii Bambey Bambey nekk na zone boo xamante ne tamit. Hmm. laata plan décennal ba di fa aw zone bu bëri woon coono la ci wàllu inondation Bambey waaw daan nañ gis autorité yi di génn di ko ŋàññ mais foofa tamit damay dama lay euh, euh, ramener mm. ci beneen témoignage boo xamante ne euh, Aïda Mbodj mi nga xamante ne président conseil départemental la woon foofu moom it def na ko ci Bambey ci plan décennal bi donc témoignage yu ay opposants la. d'accord mais donc mën nañ jàpp ne. bu fekkee ne bu témoignage politique aussi yoo xam ne. oui il cherche xam nga ki nga xamante ne ki nga xamante ñu bàyyee leen xel. un peu jéem a xool ah. xam nga xam nga xam nga ki àndul ak yow. Hmm. ki àndul ak yow bu nangoo ça veut que foofu noonu amatul débat parce que ki nga xamante ne jaral na ko moom mu inventé yenn saa yi lu amul pour daaneel la. Hmm. bu la nangulee la nga def. Hmm. ça veut dire que kooku kenn laam laameewu ko.

am na leneen loo xamante ne problème la woon lu naroon yokk ci lii te problème boobu amul. d'accord gis nga tey bu fekkoon ne bu fekkoon ne tey euh, Daaru Rahman parce que da ngay da ngay travaux d'assainissement. Mhm. da ngay xool toujours dafa am ñaari affaire yoo xamante ne moom la ñuy opposé mooy amont ak aval. Mhm. mooy maanaam da ngay pelloo fii jëlloo fële. Euh, boo boo ŋàccee fii faw nga am foo ko sotti. Mhm. wala lu lu ñëw nga jël def réseau drainage tamit. faaw am fu dem. tout à fait waaw bu demul bu demul de manière naturelle ci géej ga il faut que ñu recueillir ko soit ci bassin de bassin de rétention wala mu am ci ben zone bo xamantene ndox ma day ñeu fofu ñu traiter ko mu jall ci leneen. Mhm. parce que lepp ndox la rek. mais gis nga bu fekkone defu ñu won ci cadre euh, le ministère de la rénovation de la restructuration et de l'aménagement des zones d'inondation mooy EMRASI. Mhm. ca jamono jooju. Euh, bu fekkoon ne defuñu woon yaataluñu woon bassin wu darou Rahman

Il volonté politique qui définitivement éradiquer affaire inondation. ah bon ah bien sûr. mais mais mais que il faut pas que nous ñu le Sénégal qui exception de du cadre mondial. mais man man man hmm. man man Montpellier la la la commencé dama très souvent. gis nga quand bu lees mësaan débordé hmm. mais kenn ñun Richter fañ dëkkoon mais poto poto kese lay doon kenn du fa mën a def nii dem nii dikk da gis ñaari zone yoo xamante ne carrément ndox mi day isolé benn zone bi isolé benn mais France laa lay tegal nii de. Hmm. waaw mais Sénégal. waaw mais d'accord mais d'accord génnuñu ci phénomène mondial bul ñu génne ci àdduna bi ci àdduna bi lañ bokk. ci àdduna bi lañ bokk. voilà très bien donc dama koy expliquer parce que comparaison dafa baax yenn saa yi. Mhm. nga xam ne nit am moyen. mën dara loxoom jot ginnaawam te problème boobu du si mën dara image yi ngay jot muy jóge Malaisie di jóge États-Unis euh, di jóge France di jóge Niger gii di jóge Mali di jóge ci yeneen dëkk yi mais ñoom tamit structure lañ doon état lañ doon ay nit a fa dëkk. danañu rek mais ñu am ko mieux que ñoom tamit. ah mais d'accord mais loolu xam nga sa avis la man li ma lay wax nii. Hmm. tamit bul ma bul bul ma laaj analyse scientifique ba pare bëgg ma dugal ci ci ci quand même réponse politicienne. da nga ma laaj analyse scientifique analyse scientifique c'est-à-dire que loolu ñëpp bokk lay doon. loo xamante ne boo ko boo ko tegee France ak ak Sénégal donné bi day nekk la même loolu mooy coow li. Hmm. donc déggoo li ma la wax dama ni la. Hmm. Euh, am na ñoo xamante ne tey jii nii ñu ëpp moyen bu doon xaalis kese tey doo leen gis. ñuy daw yor seeni i bagages yenn ko parce que ndox mi dafa dafa dafa jël seen i dëkkuwaay. Mhm. te loolu du du spectacle boo xamante ne Sénégal kese la am. tout à fait waaw loolu moo tax ma koy wax noonu. d' accord alors euh, li xew Kër Massar euh, peut-être gis nga ko si tele yi dégg nga ko si rajo yi euh, dégg nga ñuy ñaxtu ñu bëri génn nañ ne tey seen situation bi ñu nekkee SN HLM bi nga xamante ne yow nekkoon nga directeur bi ñoom ñoo leen ko dikkee parce que yéen a leen jaay parcelles yi.

Euh, war nga ko mën a seeti euh, war na ci mën a apporter apporter réponse et puis moom moo fa toog pour apporter réponse donc loolu aussi dam da nga may baal rek. Mhm. moo vraiment euh, bañ ci xuus ba mu sore. d'accord mais li ma ci mën a wax lu leer. d'accord moom mooy que gis nga yooyu. Mhm. c'est des responsabilités partagées ñëpp a ci am responsabilité. dans le sens où gis nga tey boo ñëwee yow nekk aménageur wala lotisseur. Mhm. donc promoteur immobilier nga yor sa zone war ko lotisser yow la la war moy réseau secondaire yi nek ci bir nga def ko mais réseau primaire bi société concessionnaire yi la war waaw fofu tamit bu fekkee ne ndonte bu fekkone ne euh, bëgg nga ko def dafay fekk ne ONAS amna na lu mu valider lu bëri ci réseau bi d'abord mhm. ba paré mom foog mu xol bu ndox yoy génnee fan la leen di brancher mën na am station d'épuration bi gën a mhm. nek à 12 14 15 km je deuxièmement je sais que la volonté de la SNHLM il faut le reconnaître elle était là parce que si on la génneel sax ñoom documents vous marché lancé ba a ba yenn yi dañ démarrage mais il ay préalable def mais préalable nag ça appartient à leur propre validation. d'accord bon deuxièmement aussi nit ki dana jënd dana jënd terrain. que mm. euh, vous fendee ndonté mbir mi ñëwul gis na né fen mu dëkk xeyna na mais xeyna peut-être dëkk jotul won tamit tu vois. lool yëpp mën Nek, man je pense que il faut avoir un esprit euh, de synthèse et pouvoir avancer. Mhm. té fofu lay saluer man ni président tranché débat bi ñu baña dugg ci ay parparloo mom dafa né carrément en conseil des ministres je veux dama bëgg ñu defaral ma un plan d'assainissement intérimaire pour Kër Massar wax jooju tëddee na bor mu jeex.

ñu njëkkee lu mu. lu yaa ngi roof yaa ngi roofati paaka bi. non non mais mais dama la xam nga xam nga mënuñ mënuñ bàyyi non directeur. ce ce qu'on peut pas concevoir Moi, ñu bàyyi bo ba jaan jàll ñuy dóor si waxtaan bi. quand même waaw moo tax ma ni la. Hmm. boo nekkee responsable. mu leer ne tey boo doon remonté. présent hmm. président président Macky Sall bu doon remonté dina remonté ba deux régimes avant lui pour trouver ay responsables mais trouver solution moo gën yomb moom loolu moo tax ñu fal ko ay problème ñëw mu trouver ay solution te loolu moo am solo mais chaque fois on a vu que d'accord, euh, l'état a été euh, peut-être cette euh, ci Wade ci Abdou Diouf situation bo parce que c'est le un peu le territoire du 1451 R hein. waaw donc yàgg na problème problème non. mais comme mi solution mais nañu ànd ak moom ci loolu ndax moom problème bi xëy na créé wu ko mais au moins mi ngi trouvé solution bi loolu moo tax ñu fal ko. d' ñu bëri jàpp ne directeur proposition de solution yi muy def politique la rek jékki-jékki def visite naan way jël nañ Kër Massar def ko département loolu tamit ça cause problème. waa xam nga occasion bu nekk ak waxam foofa. Hmm. dama jàpp ne loolu du moo ko fa yóbbu woon. jàpp ma ne président dafa jóge présidence dem Kër Massar pour annoncer ne Kër Massar département la soyons sérieux quand waaye nak comme occasion bi présenter parce que ba mu fa plan mom waxu plan Orsec la fa wax waxu 30 milliards yu wara dugg sur un projet alternatif moy projet 2 wax fa waxu 10 milliards yi ñu dégager, dont les 3 milliards ci volet social bi la dugg Waye mu bolé ci nak wax ne que sax d'ailleurs la vieille doléance bi nga savez. euh Kër Massar ñi ngi ko doon wax parce que tay ñi fi yéwo mat nañu ëpp nañu ñetti téméri nit d'accord lolu manam ñetti xaju Tamba la région de Tamba donc peut-être c'est pertinent que nous mën ko ériger en département pour la programmation des services publics pour la programmation budgétaire pour la prise en compte de tous les éléments dans les budgets et pour aussi nous def ci ay arrondissement pour que l'administration ñeu gëna a parce que nous am ay sous-préfet nous am ay préfet mais lolu moy wax ji mais ça veut dire que le gëna important ci wax ji ngeen bayyi jël la gëna néw ci lam fa annoncé mais bëgg ko titré mais lolu aussi amul solo. wa mais aussi. Euh, wax la woon ci bir ay wax li ma wax lepp fa la ko waxe nga bàyyi fa lolu lepp japp ne c'est des stratégies mën na nek stratégie politique bu ñuy tek tamit xam nga loolu sa gis-gisu bop la. man lama la wax ni oui mais Sénégal le président. Mm. bo analyser discours am li la wax ni lepp wax na fa. wax na projet 2 wax na fa plan d'assainissement intérimaire bi wax na plan Orsec ci ci ci walu urgence ñew na constaté fi nga xamantene au moins commencé won nañ pomper ndox mi commencé dem. wax mi waxale na fa aussi affaire départementalisation Kër du lu négatif parce que wa Kër Massar ñoko don laccé donc il accède à la demande mais pourquoi ñu bëgg ko négativiser nañ ko positiver. mais le contexte choisi directeur. Ah, mais le contexte mais le contexte mais il s'y est mais c'est un territoire qui est sinistré c'est un territoire qui est sinistré c'est une commune mais peut-être en l'élevant à, à la dignité de département les problèmes de santé la prise en compte des problèmes d'éducation peut-être demain il faudra paramétrer un hôpital le mettre là-bas peut-être qu'il faudra revoir la structure de distribution des écoles mm. euh, il faudra voir est-ce que nous avons un budget Nous avons la faire maintenant le plan départemental euh, de développement le PDD mais il y a un solo volet assainissement aussi daf ciy dugg mais un volet tamit mm. parce qu'il n'y a pas que ça moo ki seetaan Dakar Actu yéen a ngi si seen émission Actu Débat fàttali tey ñoo ngi dalal ki nga xamante ni moom moo nekk monsieur Mamadou Kassé nekk directeur général bu SICAP monsieur directeur foog ñu xuus si politique bi wax ci parce que commencé nañ ko tout à l'heure si départementalisation bi ñu def bi nga xamante ni moo nekk Kër Massar waaye actualité bi mooy tournée bi nga xamante le président de la République amal na ko def ko ca Saalum ca Siin dem sax ba côté Tamba alors ñu bëri jàpp ne président a fait di def tournée politique mais a habillé ko tuddee ko tournée agricole yow sa avis lan la. <laughs> bon déjà je précise que Demoul Tamba parce que la région de Kafrine, xëy peut-être euh, def na frontière la région de Tamba mais qui mu koy defee mooy Kungel. Kungel. Kungel de Tamba non non xam nga rek donc Tamba. kon vous ko Tamba. Tamba Kungel lay une frontière la région de Kafrine. Coupentou mak Kungel ñoo taq fofu la fofu ñaar région yi différent la. d'accord te mën naa jàpp sax ne. Mhm. région de Kaffrine Ben département la fa dem te fofu amna yeneen département am département de Malem Odar amna na département de Kungel mhm. dugul département de Kungel dugul département de Malem Odar département de Kaffrine la yem. d'accord te booba sphère administrative yi fa doon gis ak euh, ci yoon bi parce que c'est un gros chantier hein bu fekké yow da ngay jaar fofu man dama fay jaar tout le temps. moy mhm. euh, croisement ba. Euh, gis nañ ne c'est un gros chantier de 24 milliards bu AGETIP di gérer après mu dem buleel euh, mi nga xamante moy mooy diggante yoonu ñii bi jëm Colobane euh, def def fofu je pense visite ci biir champ yi kon il faut ñu xam aussi suñu dëkk tuuti te bu touba kouta la ñëk joggé mhm. donc fofu aussi c'est la région de Kaolack mhm. après effectivement mu dem région de mu dugg xuusaat encore ci département de Nioro pour xol baykat yi et lancer un message ci période bi ni mhm. ñi nga xamantene ñi ngi yëngu ci mbay mi parce que buñu faté fàtte ndox mi bu yaqé fi rek day defar fee. Mhm. ça aussi il faut le dire. tout à fait waaw xam nga ñun ñoy tok di. Mhm. dañ daan dem bay baaw naan. ngir ñaan ndox. ci suñu aada. parce que amna ay baykat yu taxaw di. xaar bu bu bu bu bu bu bis bu nawet bi mënu lo xam li ni wacce ci kamil pour ñaan. Euh, ndox wacc kon bu ndox wacce euh, souvent aussi. dafa dañuy am xalaat ne euh, ak euh, saison bi danañu am gerte gu bëri mhm. danañu am ceeb bu bëri mhm. danañu am sëb mu bëri danañu am dugub ju bëri mhm. lépp loo xamante ne culture saisonnière la dañu gis ne dafay gën a ful kon nag tamit boo demee euh, régler ay problème tamit doo fàtte ñi nga xamante ne ñi nga doon ñaan yalla watch, mu dox parce que ñoon tamit ci lañ peut-être peut-être jamono bi dund nga ne mi a wacc suñu croissance moins de 1 pour nañ agriculture bokku na ci liñu ci sauver touti. Mhm. surtout bu ne dafa nek xamantene euh, vraiment. Mhm. donc pour man mhm. dama japp né tournée agricole lu am solo la lu war la. président ci kaw rek bu président dem pour ña fa la dund. bu yow war nga war na dem séti aussi échantillon ay baykat politique mécanisation de l'agriculture ci accélération de la cadence agricole moy vous yok djégo yi nga euh, pour euh, agriculture naat euh, ñuy ñuy gën di produire agriculture di gën di yor euh, ay moyens lolu am yakar ne mënul ñak solo mu def ko ci ñetti région parce que ñun fukki région ak ñent la am bu fekkee ne ci ñetti fan dem na ci ñetti région mais lolu signal bu bax la kon andok opposition bi nan oui président dafa wacc rek bëgg a defaat politique man dama andul ak opposition bay bay dama andul ak opposition d'abord man président Macky Sall landal man lumay lumay and ak ay opposition Quand nous seen avis émettre ça n'engage que. mais bien sûr que ça n'engage que très souvent aussi da ngay tenter, mais d'une démarche c'est une démarche politicienne. ah oui parce que ce vous la au Sénégal, bu yow sénégalais même si vous êtes opposant Vous war nga vous président war na mais à tout moment vous na dem. Ah, mais hmm. tu sais très bien que président kuy dem heure bii su dul woon mbas mi xam nga ni dugg na dëkk bi ñetti yoon ba ñeenti yoon. mais problème bi mooy directeur euh, nu mu ko defee ci biir euh, Covid 19 bi ñu nekk ñoom ñoo jël ñoom ñoo nekk état d'abord jël ay mesures interdit rassemblement nga def sa cortège di wër ci dëkk yi ñii di def taxaw mobilisé ay militant aussi directeur c'est à revoir quand même. non président daal man li ma jàpp. moom mooy. Hmm, hmm. xëy na peut-être euh, nit ñi xër nañu xëy na aussi namoon nañ ko ba mu am. Euh, yenn débordement yi mais débordement, ma ne benn yoon euh, il s'est mis en danger ou il a mis en danger les autres. ah oui ak rassemblement yi ñu gis yëpp mom dafa démon cortège bi ak militant yi rassemblé wu directeur. Wa mais xam nga tay bo xolé bu baax a baax. président dafa joggé fi dem touba rencontré rencontrer bi gis nga né que geste barrière c'était bien respecté bi nga xamante mom autorité administrative

mën euh, naa mën nañ ne trois écarts. Hmm. mais globalement quand même je pense que nous avons une responsabilité ñu gérer un processus mu dem une responsabilité, ñi mu war bon def bu normal euh, daal di euh, ci bi nga quotidien d'accord directeur actualité aussi je suis communiqué de génn si Karim Wade maintenant il est éligible mais il a retrouvé également ses droits politiques.

d'accord ah, am ce ci xam def d'accord légitimité. Mhm. pour expliquer ci débat d'accord euh, comme nous koy wax rek euh, cadre politique général vous êtes beaucoup ci nguur gi moom mu je opposition bi mu retrouver droit euh, Sénégal Vous mu coup fatal pour ce régime. ñi fi opposants opposition démocratie est na ah mais Karim dañ ko namoon de directeur waaw d' mais dama né démocratie yag na ci réew mi mais aussi droit tamit yag na ci réew mi té démocratie ak droit kenn mënu leena tékalé parce que yow bala ngay nek candidat dañ lay saytu ba paré xol ndax yow remplir nga critère yépp nek candidat bo remplir critères critère mais koku tu ne peux en vouloir qu'à toi-même ñun suñu candidat en tout cas remplir na critère yi yoon wañ ko tégon aussi pour mu dem outil 65000 signatures amna ñu bari ñuko wuti amuñu ko mom amna ko am na yeneen naataangoom ay moromam yu ko am waaye ba ñu demee ca arène ba woote dimaas ñëpp voté mais gis nañu résultat bi nga xamante ne moo am loolu mooy démocratie. élection locale la ñu jëm de. Karim Wade bu fi ñëwaatee te gars yi ni ñu ko namee woon yaakaaroo mu yàqal leen seen i seen i stratégie bi ngeen nekk di lal. Ah, dem sax booy booy proposer ay ay statut de l' opposition. naan man man politique moom dama lay wax benn affaire man poli man man je fais de la damay def politique dama gëwuma ko ci politique man matte laa gëm. Ah waaw waaw matt la nit di c'est-à-dire mais mbaw mooy mbaw mooy wax ju bëri mooy wax a wax wax ba nit ñi defe ne yaa ne kon da nga jàpp ne ñoom dañuy wax rek xam nga nañu nañu d'abord hmm. analyser li nga xamante ne jot naa jàll xam nga loolu moo gën a neex parce que di analyser lu ñëwagul te li jot a jàll ne fi mais li jot a jàll yëpp jàpp nañ ne da ngeen leen di nax à tout le temps da ngeen leen di nax woote dialogue avant. yow loolu yow loolu nga jàpp. non man man kay man journaliste la man yooyu man yooyu man noonu mais yéen seen biir yéen acteurs politiques yi. seen biir xam nga yomb na bu ñu la dóoree. Hmm. yomb bu ñu la dóoree nga ne dañ laa sàcc boo gañee nga jaar na yoon waaye loo ca am jël mais Sonko plus fort reste na demee mais pour pour pourquoi neewul affaire bi dañ ko sàcc moom moom jëlu ko moom kon nangu moom comme nangu na comme moom mi ngi def assemblée nationale en tant que député plus fort reste.

circuit bi nga xamantene mom lañu inscrire parce que amna na ñoo xamante ne bu ñu suba. té mhm. radio yi di wax di wax di wax di wax buñu ñu leen nee réuniral 80000 signatures wala 65000 signatures mënuñu ko. mais lolu mënon na nek rek yow li ñuy wax naan tu n'as pas voix tu n'as pas voix au voix au chapitre. Hmm. fi amna na ñoo xamante ne ñoo fi dàq euh, euh xaw ma keste kii. Hmm. Euh, kii kii ne kii ne euh, ma ancien premier ministre mo fi nekkul dara doxul. Hmm. kii né nangam sangam kërëm kërëm mais ñoo ñëpp. mais bo len nee tay jii nii demal dugg dekk ba nga xol 65000 personnes sénégalais yu citoyens yu la wolu hmm. yo xamantene dina tax nga mëna samp sa ndënd mënu loko mais ci biir ñooñu am na ñu leen sonal ça veut dire que yow. am na ñu leen sonal yéen tamit d' accord mais xam nga. Hmm. démocratie. moy hmm. nga nangu aussi ne kujje day am mais nak majorité mo koy emporter moy gouverner lolu mo fi am. lolu kenn mënu si dara c'est irréversible. té ci ci yoon bobu la ñëpp bëgg jaar jamono yi ñi yëngatu yëpp ci yoon bobu lañ bëgg jaar. pour ñomit Euh, remplacer ki nga xamantene mo fi né d'accord xeyna peut-être bo boobaa ñoom it. ñu wane sen mënin. D'accord. waye day fekk aussi nak sénégalais yi d' directeur yow ya nekkoon mën mën naa ne yow ya nekk sax euh, coordinateur mouvement euh, and Sampaat maki. C'est ça maa waaw problème mako créé. may may président bi nga and ak mom 2012 nga samp ko ñew 2002 élection yi ñu génn 24 février 2019. Mhm. ngeen lancé woon pour Sampaat maki mu ñew jël nguur bi. samp ngeen ko. yéen a ngi nek di xalaat pour sampat ko 2024 wala. no xam nga kuñ samp. Hmm. sampat la wala kuñ sampat man nañ la samp guddi la non xaaral non na mo expliquer la man hmm. xam nga man mo pour guddi man samp ma taxa a wa <laughs> waaw ñi buddi. ñom lañ créer and and buddi bu len nexé d'accord man and sampat la waxon man loolu xam nga loolu dafa leer. Hmm. ay wolof yu leer la. Euh, mais gis nga buñ la buñ la buñ la sampé ba paré moy d'abord ñun ñoy gaddu fu yi tax kenn du sempi. loolu ah. mooy benn mhm. mooy ñaareel ba moom mooy mhm. euh, dañ lay samp sur la base de loo xamante ne da ko digle mm. ak nit ñi donc bu ñu la paree mm. mbirum samp bi bu fekkee ne wax nañ ko pare yow bu mm. fekkee ne yow yow maanaam samp euh, ngeen ba pare wa wa wàqi nañ ba mu mat mm-hmm. samp la ñu samp reen yi nga nga teg say reen mm-hmm. dégg nga ñu ñu ñu ñu ñu ñu ubaat lépp dégg de bu ñu bu ñu noppee xam la ñuy xool xaar pour affaire yi sax indi ay doom mais bu ñu bëggee ñu samp la léegi. Hmm. ñu bëgg fi nekk ci débat wu simpi la léegi. Hmm. mais kooku ña fa bëgg toog ña fa bëgg sax garab ñooñu lay intéressé mais ñun intéressé wu ñun xam nga ne hmm. ñun garab gi ami doom moo ñu intéressé. mais dafa fekk que ni garab bi dafa nekk euh, benn mandat la war a def bu paree dem ñu xanaa ngeen wutaat. keneen koo leen ngi intéressé ñi nga xamante ne tey jii nii. ñoom problème mu Sénégal yi intéressé wu leen gis nga dafa am benn benn benn benn benn penseur bu ñu naan Clark moom ak Abraham Lincoln dañu bokk wax benn benn wax bu am solo nee nañu Euh, l'homme politique pense à la prochaine échéance pendant que l'homme d'État pense aux prochaines générations gis nga wax jooju dafa tekki lu am solo. Mhm. li mu tekki mooy. ki nga xamante ne moom suba guddi gannaaw suba ci politique lay nekk. parce que politique aussi on peut ko faire de telle sorte que. Mhm. yow tey nga mën a opposition mais nga jariñ sa askan. ci ay xalaat baaxee sa président mais ci ay khalat yu baax ay orientation yenn saa yi sax. nga ne man jamono bon comme comme élection jotagul mën na maa jóg participer ci biir mbir mi te xam naa ni président moom nekkul koo xamante ne sax dina bañ loolu. bu ko defee benn yoon boo xamante ne. Mhm. dootuñu waxati affaire élection affaire kuje dañuy wax affaire d'abord intérêt Sénégal bu fekkee ne yow comme comme citoyen yi Macky Sall la ñu choisir. Mhm yow nga nangul Macky Sall loolu juróomi at yoy mm. bañ fi nek di fitnal te lo am ci xalat lu bax lo xamantene yow yéene ko sénégalais mm. mais nga ñew weccoonte ko Macky parce que mom la mom mom la sénégalais choisir loolu aussi mën naa doon méthode kon ça veut dire que and nga gouvernement élargi bi ñuy wax non da man xam nga fi Sénégal parce que raisonnement bi nga joxé ah motax ma wax ñun dañu am histoire oui buñu interroger suñu histoire gis nañ fi lu né mm-hmm. gis nañ fi Ablaye Wade mu taxaw fi mm-hmm. euh opposé wu contre Senghor opposé ou contre Abdou Diouf ba ñuy politicien bu Mame Less Mame Less Dia dan def lu ñuy wax feuilleton autour d'un fauteuil man je pense que soit Mame Less Dia la wala wala Cafard Libéré je pense que Tété Fonce mo dan mo dan, mo dan dessiner yoy. ñuy def feuilleton autour d'un fauteuil nga xamante ne loolu rek la woon mais téréwul à un moment donné pour les intérêts de la supérieure de la nation mais jóg ne ñeu and ak koku ñu liggéey té liggéey nañ fi lu reuy ensemble kon lu ne warna naa mën a am ci dëkk bi mais le gouvernement de fait est un gouvernement élargi nga bëgg ko nga bañ ko. ah oui ah bien sûr parce que APR rek gouverner coalition Benno Bokk coalition bi gën a bi Sénégal am depuis euh, que la politique et les politiques au Sénégal. loolu mooy non xaaral rek. may non même ma oui loolu mooy ben. ñaareel ba coalition bi gën a yaatu ak bi gën a yàgg ci ay àndu ño xamantene ne ñu parti. tout à fait. Euh, AFP bokku ci PS bokku ci. Euh, PSA bokk ci euh, euh, bu dog bu mu gàcce bokk ci. bëri nañ ah coalition moom mënoo ko lim mu jeex bëri nañ. waaw d'accord mais kon kay loolu loolu rek déjà gouvernement élargi la. parce que gouvernement restreint mooy koo xamante ne yow sa parti nga ñëw nga gagné nga gouverner yow ak say partie mais léegi kay da nga xanaa gën ko élargir kay ngay wax te loolu la ñëpp di ñaan li ñëpp di ñaan àdduna moom mooy plus ñuy dem plus président Macky Sall di am ñoo xamante ne ñoo ñoo ñoo bañoon dem nangu tey. léegi nag ku ba ñu démb. bu ñu nangoo tey. xëy na seen i pexe jubul loolu de la Youssou Ndour wax te li mu wax yaakaar naa lu leer la. d'accord directeur ñu jeexal rek euh, kon ça veut dire li nga wax boobu ba tey maa ngi tourné ah di la jéem a indi mais yaa ngi may génne débat troisième mandat. ça veut dire intéressé wu la intéressé wu la autant pour moi. parce que damay bëgg a xuus si débat bi yaa ngi may yaa ngi génne yóbbu ma si beneen côté. pour dire vrai débat troisième wala jamono ji. yow da ma bëgg a yóbbu ay école élémentaire ay. un ay deux non même pas non c'est des questions d'actualité. non xamal xamal xamal xamal la mooy problème bi. Hmm. dégguloo ma ni la. Hmm. ñun mën nga considére ne ci politique ñun Macky Sall suñu xalif général la mën nga considérer ne ci ndigal la ñuy wéyee ak moom ci politique mën nga considérer ne. suñu baat ak suñu kaddu politique dañ ko koy jox parce que dañu ko wóolu. mën nga considere ne ñun ay baay faalam lañ bu fekkee ne da nga bëgg comprendre encore plus. mën nga considérer ne que tey jii nii du ñu waroog moom ci dara man Mamadou Kassé maa ko wax man du ma waroog moom ci dara. lu mu mënti jël comme décision. ci politique la ñuy wax. oui décision politique je veux dire non je veux décision politique. mais maa la ko wax décision politique laa lay wax waxuma la leneen. man sama ñaata moroom ñoo mënoon toog fii sikap pourquoi mu wóolu ma man man man man jox jox jox ma sikap sama ñaata moroom ñoo mën liggéey sama ñaata moroom ñoo ma fi jiitu soixante-dix ans durant. est-ce que ñëwut kon directeur non mais d'accord mais loolu sax xalaat la man sama xalaatu bopp laa lay jox. oui te loolu je l'assume man maa ko wax man maa ko assumé. bu am naa ci droit quand même je suis un citoyen mu neexee man bu man yow yaay jóg xëy suba ne yow taalibe cheikh nga euh, wér di nga jël moom nga def kële ne moom taalibe murit la moom wer max maxfuus lay def dafa jébbalu hmm. euh, waaw kële kële kële ñu pare ci loolu jël ci beneen wàll nga jël même même cadre bi politique kii ne la hmm. man ah man de man diw laa àndal lu mu wax maa maa ngi ci ginnaawam parce que jàpp naa ne moo am vision bi man Macky Sall laa àndal président Macky lu mu wax maa ngi si parce que sama cadre politique moom laa ko jox lu koy leer na d'accord directeur émission bi je na gërëm nañ la sant la ah pas évident contexte Covid 19 lañ nekk. rendez vous yi bëri mais accordé nga ñu ben interview boo xamante ni dina mën a jàll si Dakaractu TV gërëm nañ la sant la. macha nous lu ñu waxutoon loo xamante ni bëgg nga ko yokk. waaw xanaa rek euh, waxoon nga ko sànq. dem nga bay xuus ci biir Tamba. nga génnaat encore. tout à fait euh, ñu rester sur des questions nationales. may euh, rek ou encore une fois waa Tamba.

Euh, suñu chef de parti suñu chef de coalition muy le président Macky Sall mom lay joxé parce que ñun japp nañu né amul leneen lo xamante ne dina ko def lo xamante c'est contraire. d'accord ak bëgg réew mi. bëgg Tamba bobu maire bi fa nga jëm. waaw xam nga maire bi mom <laughs> étape la rek comme ni ñëpp nekké étape xam nga ndar xeyul soti te yalla wax nako ci alcorane may jox nguur ku neex may jox ay ndombo tànk ku neex waaye nak politique moom loolu laajul mënoo ko téye. mais soxla ko mosoo gis ku ñu fekk ne la non mosoo gis ku ñu fekk dàqe la ci biir mbedd mi ne la kaay nekk maire wala kaay nekk nekk di nekk dara yaa koy bëgg sabab ko. ndax xeex ko am ci yoon am trajectoire te man jàpp naa ne tey. Mhm. déterminant yi war a nit war a mën a nekkee maire yëpp. Mhm. nekk na ci man man urbaniste la aménagiste la bu dee danga may laaj sama xalaat ci mbënd mi di ma ko laaj ci dëkkuwaay yi di ma ko laaj ci lotissement yi. di la ci extension électricité ak nu ñuy doxalee dëkk bi man wa man war naa mën a yor sama dëkk. loolu mooy ben, ñaareel ba moom mooy jàpp naa ne am expérience bi vingt cinq ans mi ngi nii maa ngi liggéey ci sama secteur. Mhm. ñetteel ba yaakaar naa ancrage politique bi parce que Benno Bokk Yaakaar laa nekk te ñoo fëpp doole. Mhm. te yàlla def on a fait d'excellents résultats. ñetteel ba boo demee à la base. Mhm. nga laajte kuy Mamadou Kassé di nga xam ndax man am base wala awma base.

D'accord. accord pour njëriñu askan wi. D'accord. accord mbokk yi seetaan Dakar Actu émission bi jeexna ñu jox leen dig dajé semaine bi di ñëw ak benen invité ci seen émission Actu Débat jar ngeen jëf.